ni nga may woowee téléphone ni ñuy génn ah. un opposant bu nga xam ne ñu bloqué këram assiégé këram blocus ko nekk doo génn sa ay njaboot du ñu génn sa ay doom du ñu jàngi sa jabar yi du ñu liggéey yow mënoo dem doxi su soxla loolu ñun ñëpp xam nañu vraiment métti na te injustice la ce n'est pas normal te l'État doit cesser saa yu Ousmane amee un problème avec un citoyen lambda bi dugal si loxo c'était le cas pareil avec le cas de Adji Sarr deux vraiment seen problème mun nañ ko régler en toute simplicité auprès de la justice sans que état bi dugal ci loxo Ousmane Sonko kan la amel problème ñu ne Mame Mbaye Niang soo demee kër Mame Mbaye Niang y a personne dafa gis force de l'ordre la maison n'est pas bloquée ay doomam ñi ngi jàngi ay jabaram ñi ngi doxi seen soxla moom si boppam mi ngi doxi ay soxlam di dem biram di wàcc di ñëw pourquoi Ousmane Sonko bu mu amoon problème mënul am cette liberté là moom on bloque sa maison on empêche à ses enfants d'aller à on empêche à ses épouses de sortir de vaquer à leur occupation mais pour quelle raison pour quelle raison donc nous appose euh, nous appelons ce régime vraiment à revenir à la sérénité lii politique jaru ko xeex jaru ko animosité narul am ci politique Macky Sall nag dafa commencé dugal animosité ci biir politique les opposants on doit un peu s'opposer par les idées mais am amener la haine entre les gens te Macky lu mu dugal ci politique mooy haine la dugal ci politique Ousmane Sonko c'est un opposant et il s'oppose par les idées il a révolutionné la façon de faire la politique au Sénégal moom ci boppam la wax la da koy wax i yi lay indi askan bi lay waxal waxul sax ak Macky Sall askan bi lay waxal askan bi moo adhéré ci popula euh, ci politique am bi moo adhéré ci discours am donc normalement lépp yi dafa nar a jaar yoon Sénégal démocratie moo fi am et du ñu xeex pour démocratie bi dëkk bi Macky Sall a bénéficié de cette démocratie là. Ablaye Wade su ko defoon le un dixième de moom lu mu nekk di faire subir au président Macky Sall euh, président Idrissa euh, nu mu tudd Ousmane Sonko il ne sera pas président à ce temps instant yi du nekk président donc ne delloo si xalam xam na ne moom mënu fi am troisième candidature wax ma sax troisième mandat troisième candidature am ce sera pas accepté na ubbi jeu bi ñi nar bokk bokk sénégalais yi mun a tànn seen njiit en toute lucidité et en toute simplicité te 2024 am nañu yaakaar incha allahu rabi. d'accord Ousmane Sonko dina jël réew bi. redresser Sénégal parce que Sénégal fu mu nekk nii daanu. d'accord mais depuis ce matin on nous parle de médiation par ci par ça. médiation amul. Hmm. ça c'est des fausses informations que fait véhiculer euh, euh, euh, Mame Mbaye Niang soi-disant que Ousmane Sonko mu ngi koy envoyé ay médiateurs Ousmane Sonko ne lui a jamais envoyé de médiateur. Hmm. je le dis et je le répète. Ousmane Sonko musu ko envoyé médiateur et il ne demande pas pardon. Mhm. lu muy wax wax nañ ko la justice doit trancher on a qu'à laisser la justice trancher en toute sérénité. Mhm. loolu la ñuy laaj. mais assiéger sa maison faire le blocus auprès de sa domicile ça nous ne l'accepterons pas. Mhm. et dorénavant nous en tant que des patriotes de Mermoz Sacré-Cœur. moi je suis le responsable des patriotes de Mermoz on va on va assiéger la maison c'est nous qui allons maintenant la sécurité du on va assiéger sa demeure. Mhm. On va camper devant sa maison. Les policiers, les portes de n'auront plus accès mhm. au, niveau de la demeure d'Ousmane Sonko. Mm -hmm. Dorénavant, c'est nous qui prendrons leurs nos responsabilités. Nous allons camper et eux, ils n'auront pas droit mhm. de venir devant chez Ousmane Sonko. Et le 30, nous allons l'accompagner. Avant le 30, nous allons camper devant chez Ousmane Sonko. On va y passer la nuit. S'il le faut des mois et des mois, on passe la la nuit devant et nous allons le servir de bouclier. D'accord. Monsieur Sarr on n'acceptera plus fi ñëw tey ci suba. nee na dafay exiger ñu. am nañu ñoo xam ne fii. Mhm. ils sont encore euh, en liberté provisoire. Mhm. ñoo xam ne seen passeport du ñu ko nangoon le ministre Omar Sarr ñu ñëwoon fii on avait enlevé seen passeport du ñu ko nangoon. Mhm. ah les Abdoulaye Baldé ñoom ñëpp ils sont en liberté provisoire. kuréel yi daf leen fi jàppoon. ñooñu ñu ngi tukki. Mhm. et pire on les a nommés ministres léegi. Mhm. ku Macky Sall dem di leen yóbbaale. Mhm. alors ça c'est en toute illégalité. des personnes qui ont qui, qui sont en liberté provisoire qui ont maille à partir de la justice. qu'on doit juger au niveau de la CREI et on les nomme ministres. mais ça mais c'est mais c'est dans quel pays nous sommes. Ouais. C'est un peu compliqué. C'est dans Si Ousmane Sonko est malade et si ça de sortir, d'aller se soigner à l'extérieur, on doit lui rendre son En euh, sortie passeport. Les propos de Ahmed Suzanne Kamara. Oui. Ahmed Suzanne Kamara, tout le monde sait que c'est un pyromane, c'est un coup. Mm. Et c'est désolant encore que l'État ne prenne pas ses responsabilités. Lorsqu'il s'agit des patriotes, le procureur est toujours pressé hmm. de nous traquer, de nous mettre en prison. Et les, les partisans du régime, les partisans de l'APR, ils passent le temps à insulter, ils passent le temps à menacer. Ils ont menacé Ousmane Sonko de brûler sa maison, ils ont menacé de tuer Ousmane Sonko, mais l'État ne lève pas le a petit doigt. Mm -hmm. Le procureur ne s'est jamais autosaisi dans ces cas pareils. Et ça aussi, nous le déplorons, le deux poids, deux mesures qui existe. taxawaayu patriote yi ñu jeexal. taxawaayu patriote yi dama laa laaj rek patriote bi ñu leen laaj qu'on serve de bouclier à notre président Sonko. Ousmane Sonko mhm. mhm. léegi nag ñun ñoo ci des. ñu ñoo nar a engagé combat bi te dootuñu nangooti lu fi xew di xewaat. Ousmane Sonko c'était la dernière fois ñu koy extirpé si oto. Mm. du ñu nangooti muy dem di wuy tribunal ñu koy. faagaagal di ko extirper si oto di ko gazer loolu dootuñu ko nangut waaw plus jamais ça loolu moom mënutul am mhm. mënutul am et on nous allons prendre nos responsabilités mhm. dorénavant nous on va camper devant la maison d'Ousmane Sonko léegi ñun ñooy camper foofu merci beaucoup merci c'est trop gentil merci jërëjëf ñu tur bi Thierno Aliou Sy coordinateur de Pastef de Mermoz Sacré d'accord merci beaucoup monsieur merci ñoo ko ñoo ko déggandoo kàddu nga xam ne respecté na ko euh, par rapport ak li nga xam ne moom moo euh, xew démb ak tey c'est désolant euh, kenn rafet rafetlu ko benn yoon waaye nag ñoom li ñuy wax moom mooy pare nañu pour rek défendre seen leader bile di Ousmane Sonko ci li nga xam ne moom moo xew ci dëkk bi nee na ñu bàyyi benn yoon itam ñi nga xam ne ay bayu lañ ñëw di saccagé kër ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko alors ñoom ils sont fermes ci seen décision ñëw na nag pour xool ki nga xam ne euh, moom mooy leaderam di Ousmane Sonko xool ci euh, ban euh, état la toll pour les l'instant ndax depuis ci suba ba léegi c'est un peu compliqué critique na loolu itam xamuñ exactement ci lan la nekk waaye ki nga xam ne moom mooy Gumbala moom nag li mu ne moom mooy d'ici 72 heures su ma jumul loolu la wax. Euh, kii di Ousmane Sonko dina euh, gën a nekk ci jàmm naam mi ngi ci jàmm ndax nag euh, may ñu tout le monde di am accès ci salle bi nga xam ne moom la daal di nekk ñi ñu may accès rek moom mooy ñi nga xam ne gëj nañ koo jege lool. ku ci mel ni El Malick nekk itam ki nga xam ne moom mooy la chargé wu comme chargé wu comme. Babacar da leen di yóbbu ne ñun ngeen bàyyi ñu relève bi. non Mouhamed indi na matériel. amul ah, na nangoo wax. waaw dara yow Tu sais que moi aussi pas Je sais que tu es fatiguée. On est fatigué, on va dire à Guada de se reposer. Tu peux gérer la chose. jërëjëf sa jàmm yàgg gis naa taxawaay bi.